santaat God ba ni yegg si fi nii ñëpp a taxaw teeru dana sel si new mind defar lépp ba mu taaru am buzz doon star mbaari kàlla day beru du ñu geru benn géwél jarul kenn ñëw di ceeru ñun dër mus ta ne mukk du ñu lekk waxtaan xaala wañ wala boog fis da ngeen a ñu waxtaan góor faali maa ngi xaar fanam na laay mayo mbay njaay fay may xaar suma la mayo bu baax tey tax nga de maa soo raay nga tabaski bi. mooy yow yaa tal tabaski gi. lan la. mooy programme bu dee laa jëm. ban programme. bu baax a tra tabaski bii nii. mooy talu ma laa jëm si te programme bi lan nga leen def. mooy yow da ngaa yëngu te xew waaye man mii di waaj dem sa programme ngaa ko ba leen demal nga naan ma ay. waa. si lii yaa. ngay foo xanaa ngaa ka tey moo tëgg ah booy te liiru journal bi njëriñu la dara toogal que ça soit la dernière la première lii moo tax mën naa ñëw def naan gis nga Sénégal fu ñu toll nii jamono bu ñu toll nii sa journal ngay xool yow taloo dala lu dul làmbaj làmb rek nga tal nga xabu leen de boo doy ndeysaan booy booy booy yow bàyyi ma dem sama ngaa ëmbeleen bi toogal toogal xamoon li xew boo xamoon doo ne ngaa ëmbeleen bi ñaanal ko fu mu nekk mu génn waaw yéen seen kër ga na ma tey laa romb si journal bi léegi léegi ndeysaan ma fekk ñi ñi ñi liir journal bi ñi ba léegi taxaw te yow xam nga loolu normal lu muy taxaw xanaa ko bu la dee xanaa ko mu caabi moo fekk si ginnaaw. laa tax a buusi naa. loolu buusi naa toogal ko moom ak li ca loolu tax sa bëgg naa toogal bi gis nga yow doo doo seetaan télé doo def dara bu yow rek ngaa ko bu la dee liñ ko tëj est-ce que xam nga ne ñaaw ñaaw na trop liñ ko jàpp ñaaw na trop xam nga li nga tudd ay faux billets naan faux billet la def lan billet. te lu jaadul yoon un grand star comme Ngaaka xam nga du gëf yooyu noonu mukk gëf genre yooyu noonu mukk ah ñu koy naan foo bii ngan bii yow jaadul yoon Sénégal yow xamoo lu xew Sénégal ñëpp adduna ñëpp ñëpp continent monde muy rappeurs yi joueurs yi mbalax maan euh, euh, ah ñëpp ñu ngi ñaan lillaahi wa rasuuli pour état bi man mii sax ñaan naa ngir yàlla ak yonent bi état bi taxaw bale yi taxaw dossier yi muy loolu te ku def si mois dañ la nar a jugé ñi xam na fi nga féete waaw yow may wax yow pare ma ngay kii non bul jooy jarul jooy xam naa fu mu toll nii sax comme dafa set dafa tooy xeet boo jooyee man ak yow ñoo ànd boo jooyee damay jooy. boo jooy damay jooy eh Ibrahima jox ko ndox mu naan boo jooy damay jooy kontaan man ak yow ñu jóg dem si kii état ba ñu ñëpp ay citoyen lañ citoyen lañ ñu dem si état ba Ibrahima jox ko mu naan waay bi. nga xam ne booy bu tooy. li ko def ndax la defoon place indépendance. mais booy lii du yoon booy. déet lii du yoon. waa. ngeen yàlla di yéen état Sénégal ñu ngi lay ñaan ñun ñu ngi lay ñaan ñun ndax parce que la bi jooy nañ ñun ñi sax ñun ñun ñii jooy nañ ndax artiste bu mag artiste bu mag bu mel ni Ngaaka Blindé baax bu baax mu dugg suñ bopp yi wala nga lakk ko waaye foo biyee boobu noonu foo biyee boobu noonu yoon tereewu ko dama dégg ñu ne ci